maa ngi ñaan yàlla mi nga xamante ni dara tëwu ko nag mu bokk nu dimbali defal nu jikko rafet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki nga gën a jege ci yéen ëllëg yoomal xiyaam mooy ki gën a rafet ci yéen jikko te bu ñuy wax jikko ji rafet nag at yii moo koy firndeel mooy nit ku yërëm nit ñi mooy nit ku bëgg ñëpp nit kuy dimbali nit ñi nit kuy wax ci nit ñi lu baax nit ku yéene ñëpp luñ am nit ku woyof yooyu mooy jikko ji rafet waaye ñu xam ne yàlla moom xol bi lay xool xol la moom de nit ñi ñooy xool naan ah kii mbubbam mi rafet na kii otom bi rafet na kii këram gi rafet na kii nangam rafet na yàlla amul ci loolu soxla loolu lépp fi lañ koy bàyyi te kuy dem la lay jariñ fa ko jëm mooy jikko xol bi xol bi kon xol boobu waxtu ne nañ koy nemmeeku lépp lu ci suñ borom gërëmul ñuy fexe loola dañ lépp lu ci yàlla gërëm ñu fexe loola sax ci nit léeg-léeg mën nga koy gis kat mu jógee fu fu muy miire miir xam ngeen li ma jubloo wax te fekk ku am xol bu rafet la maa ne yàllaa ko rek waaye ku am xol rafet la mën nga gis nit di def leneen nit fekk ku am xol bu rafet la ku amee jikko ji rafet la te jikko jooju mooy li am solo mën nga gis nit it mën nay dëkke woor mën nay tudd yàlla mën nay julli fekk xol bi la ca boobu wal xiyaasu billah xolam rafetut fu mu rek ma ngay añaane nit ñi lu nit am mu seet nu mu ko xajamale xool nu mu yàqe nit ki ci lu mu du teg fenn di ëmbal nit ñi ab safaan di leen ko wax di leen añaane di rëy di gis boppam di wax lu dul noona di rambaj yàq diggante ci waxam ak jëfam ak meloom te yooyu yëpp du lu gën ak jullit dafay rafet jikko li mu bëggal boppam mu bëggal ko jullit ñëpp te yàlla tax yàlla nu yàlla gën a dimbali gën noo jàppale jéggal lu rëcc rëcc yi ñuy def nga xamante ni dara loru ko ci waaye nangul ni yiw yi ñuy def nga xamante ni it dara jëriñu ko ci lu ci ne lii jëriñu ko lii loru ko waaye nag yàlla na nu nangul canam toll te bañ xool sunu manki ak sunu matade te yàlla mi dara tawuti nag bokk na defal mujj gu rafet képp kenn ci nun nii képp ku ne aajo jamu am bëgg ko ci xolam moom moo ko xam moom moo ko gën a xam waaye yàlla moo ko ko gën a xam mm-hmm. te yàlla nag aajo ju faju rek yàlla ko faj mm-hmm. lu jàpp ndel lu ne yàlla moo ko jàpp ndel mm-hmm. ku am ak wir yàlla la ko jox ku am sago yàllaa la ko jox ku am xel yàllaa la ko jox ku fekkee it yàlla kon yàlla mi la may nga fekkee may la xel may la sago def ci yow aajo jooji yàlla na la ko yàlla fajal ci ni mu gën a rafet kenn ku ci nekk la mu bëgg ci boppam bëgg ko ci njabootam la ko wër yàlla na leen ci yàlla defal lu kawe seen jot te defal na ci lu kawe seen jot te lépp nag ànd ak jàmm ak tawfiq bu sedd guy yàlla sàmm nu yàlla aar nu yàlla yiir nu yàlla saxal sunu sutura yàlla musal nu ci ndog yi ak pakk yi kenn ku ci nekk daal lay bëgg-bëggam ci dundam yàlla defal ko ci lu kawe njort te lépp nag ànd ak am yàlla luñ mën di ñàkk it yàlla nan am yàlla luñ mën di am yàlla ci suñu borom jiitu ci mbaaxam ci yërmandeem ci tawféexam ci ndimbalam sant nañ bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf